alors euh, dañuy daal di door waxtaan mi ñu dooree ko ak li nga xamante nii mooy euh, li woon démb Mbaye Babacar xare bu mbul ngay daal di fas waxtaan waxtaane waaw Fatka tey ñu fas yéene waxtaanee xare mbul mhm. di xare boo xamante ni bokk na ci xare yi gën a mag ci diggante Kajoor ak Bawol euh, xare yi nag mag ñi daan nañ ko nettali liñ ci jublu woon nag xare yi la ko daan sabab ak xare yi euh, jëf yu rafet yi nga xamante ni daan na ci am ak njàmbaar yi ci daan am ak ngor gi ci daan feeñ ak jom gi ci daan feeñ ak rafetal ak diggante yi ci biiru bokk bi loolu lépp nga xam ne daan na ci xare yi loolu moo taxoon mag ñi euh, daan nettali xare yi di xool la ca gën a rafet nga xamante ni buñ ko nettalee mu defar buñ ko nettalee nit ñu jàngee ci buñ ci ko nettalee mu daggi jom yee ngor yi nga xamante ni ñu nelaw ci biir dereti gor yi moo taxoon mag ñi daan ko nettali mu nekk xare boo xamante ni euh, dafa doxoon ci diggante Kajoor ak Bawol ki waraloon xare bi nag ki nga xamante ni moom moo ko sabab sababoon di ku ñuy wax Amari Mbéri Tall waaye xare bi ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko xare di ki nga xamante ni moom moo di Damel Birima Ngoone Latiir dëkk kër Cendee la ci Géño juddu ci néegu géej euh, ki nga xamante ni moom moo di ma koddu koddu Diouf di baayam moom mum damelteñ ma fatma cubbu mum bumi nguran mawo mom damelteñ ma koddu kumba jariñ moom la ma sas ma coro fay sas ba euh, ki nga xamante ni moom moo di ngoone Ngone ab Absa di ndayam Ngone Latir damel may sa tend joor damel may sa tend joor teeñ lat dëgën faali moom damel may sa dëgën moom jàmboor la diggan ummi sàmb moom damel may sa tend wejji moom teeñ lat sukaabe ngoone jéey borom fukki jabar juróomi goro noonu la juddoo moom birima ngoone latir ci wàllu ndey ak ci wàllu baay mu daje ci ak ki nga xamante ni moom moo di ci yaasin ngoone déggan joor mbàcco kumba joojo koddu leel mi nga xamante ni mi ngi dëkk bawol juddu ci néegub goomaay teeñ ci Yaasin Ngoone Déggan moomu ak Aysa Kumba Ngoone Déggan ak Maalik Kumba Ngoone Déggan ak Lingeer Kumba Ndoofaan teeñ Amari Joor Borso Mbisaan mooy seen bàyyi waaye teeñ Amari Joor Borso Mbisaan teeñ ci Yaasin Yaasin Jeng baayam ma nga Baling moom damel teeñ Amari Ngoone Ndeel Kumba Jaariñ moom teeñ ci Yaasin noonu la juddoo ci néegu goomaay bokk ci askanu paaleen wu rëy woowu mu nekkoon ñaar ñoo xamante ne nii ñoom ñi seq xare bi kenn ku ci nekk ni nga juddoo may na la nga dàmbe ñaari ndomba tànk yëpp nekk damel ca Kajoor nekkit teeñ ca Bawal ñoom ñaar nag euh, seen diggante am loo xamante ne moom moo ko sabab xare boobu nga xamante ni dox na seen seen diggante ñoom ñaar euh, bi nga xamante ni Birima Fatma Thioub saay na ki nga xam ne moom moo ko wutu moo di Damel Maysa Tend Joor Damel Maysa Tend bi ñu ko wutoo nag nekk buur bu yaatu buur bu baax buur boo xamante ni ufoon na njabootam nga xam ne ci ak nguuram foofu nga xamante ni moom moo di gis euh, la wax yu bëri ci keppaaram lañ yaroo doomi buur yi ñoom ñëpp foofu lañ nekkoon ñu ci bari euh, yaroo ci keppaaram mu uuf leen waaye ci jamono jooju ki nga xamante ni moom moo di Amari Mbéri Tall euh, bëggoon na nekk jëwriñ mbul ndax bi nga xamante ni Birima Fatma Thioub ñu ngi ci nguur gi ñëwoon na di ko daggu bëggoon mu fal ko jëwriñ bul ndax ñoom ñaar ñoo bokk bàyyi bu mbi nguran maawo mooy seen bàyyi bi mu ko dagoo falu ko ba ni mu saayee bi ko may sa tend jor wutoo mu bëggoon nekk jëwriñ bul am bis mu takkee jukki ndax moom mu ngi bokk ci néegu xaagaan daal di ñëw fi nga xamante ne moom moo di ngi gis ànd ak ay gawar yu bari bi mu ñëwee mu fekk xale yi doomi buur yooyu nga xamante ni ñu ngi foofu ci penc mi di foofu mu nuyonteeg ñoom kenn ku ci nekk mu nuyu la laaj la ni nga tudd nga wax ko ni nga tudd wax ko kii sa baay ba ni mu egsee ci Birima Ngóone Latir boobu Birima Ngóone Latir mi ngi toll ci jamonoy euh, ndaw bu ko laajee ni nga tudd Birima ne ko man xaw ma sama tur mu ne ko ah euh, nan la nit di bañ a xamee aw turam mu ne ko waaw ah, ndax dañ may woowee barget di ma woowee béjjën di ma woowee Ceeman Ganjoon di ma woowee Jogomaay di ma woowee Kor Linguère tur yooyu bari ci man ba xaw ma wan laa ci war a wuyoo ndax gis nga doomi buur yi bu njëkk dañuy teel a yëg seen ngor ak seen jàmbaar ak seenu judd koo ci masaan na surtout xool ko rek boo ko xoolee ca ci personnalité bi ak ci col gi ak ci nekkin wi da ngay xam ne kii doomi buur la ndax mag ñi daan nañ ci xool xale xam ne ëllëg kii fu mu jaar dina falu ndax ni muy toll ci dayoo euh, daan nañ xam ne doomi buur rek ci jëmmam waaye tey boo génnee ci mbedd bi mën ngaa gis nit rek xeeb ko ndax ni muy mel fekk sax mu bokk fu baax doomi buur mu na génn bu ne tëll ci penc mi nu xàmmee ko moo tax da nga daan dégg waykat yi ñu naan la solul ba mel ni doomi buur daggul nu topp lay xalam géwél yi way junjun yi jiin doomi buur fu masaan a génn rek nu xam ko waaye léegi li xew ci ak col dafa jagam fëtteeku wala nga sol loo xamante ni say cër day ne ca biti baa nga wàcce sa tubéy xeebu ku la gis du la naw baaxul Birima ne ko xaw ma sama tur limal koo tur yi nga xamante ni noonu la noonu lañ koy woow yëpp Amari Bertal ne ko yow day doom yow laa doon seet euh, sa maam laa bëgg a gis may sa tend Euh, dama la ci yónni su fekkente ni mënu koo gis na nga ma ko waxal ne ko na ma fal jër jëwriñ mbul booba jëwriñ mbul ndomb ak tànk bu rëy la goo xamante ni buñ koy misaal mën naa toll ak premier ministre mu bëggoon koo falu birima daal di dem ci maamam ndax xam nga maam ak sët danoo jege ndax xam na ne birima may sa tend mooy maamam te maam day bëgg sët ndax ngoone latir absa mi ko jur may sa tend ko jur kon Birima may sa tend di maamam direct boobu nag damel du neex a gis moo taxoon mu tànn sëtam boobu ngir mu mën koo gis euh, ndax booba damel fi muy nekk juróom-ñetti bunt di nga ko romb doog faa egg te bunt bu ci nekk juróom-ñetti ponkal dinañ fa taxaw kenn ku ci nekk gàccoo ñaari dibi kon gis ko du yomb moo tax mu tànn sëtam boobu yónnee ko ci moom bi sëtam ñëwee Birima Ngoné Latyr ñëw sëgg ci nopp maamam xam nga tamit yar ba nu daan am ak personnalité ba ñëw sëgg ci nopp maamam dëgg moom ne ko sa maam dafa am koo xam ne daal gan la ñëw na ci pénc ma di la seet waaye dana ma naan la dama yónni ci yow nee na fekkee mënu laa gis tamit daa bëggoon nga fal ko jëwriñ ñun fekk boobu may sa tend mu ngi toog ak yeneen jàmbaar yeneen i buur ñu toog di yoote ndax ñoom mag ñi euh, jamono jooju wure moo nekkoon seen seen passe-temps te it ci lañ daan waxee lépp loo xamante ne bëgg nañ ko wax moom moo daan nekk journal comme information yi war a jàll ñu ngi ko daan jaarale ci wuure sooy seetaan film yi sax da nga gis chef de chef de bande yeeg yooyu jeunes yi dañu am benn taaw bu ñu teg boo xam dañ ciy teg ay kii yenn saa yi nga gis kenn ñëw pousse benn pion daan dem waaw mhm. noonu nag la buur yi daan def mu ko fekk muy yoote ak yeneen buur après ci la sigi daan ne leen euh, ki ma biri ma di wax kan la leen nuru ñu ne ko kooku de Amari Mberitaan rek la mën a doon ndax su amee kuy ñëw di laajaat jëwriñ bun ci jamono ji Amari Mberitaan la ndax daggu na magam euh, Birima Fatma Thioub ba mu dem te falu ko kon su koy la su amee ku koy laajaat rek moom la war a doon may sa te ndax xam li xew waaye xale xamul mun a birima demal nga foyi loolu du waxi xale birima daal di génn ñëwaat ci pénc bi wax jooju ko maamam wax nag xaw ko choqué te it am na kersa ci wax maamam loolu euh, mu ne ko maam xam naa ne sama maam doo ko mën a gis tey waaye demal ñaanal ma bis bu ma faloo dinaa la fal jëwriñ bul euh, maamam daal di raay boppam ne ko yow day doom boo deewul danga nga falu daal di ànd ak gawar yi ñu daal di ñibbi fa nga xamante ni moom moo di njukki yàlla mi dara tawul may sa tend nguuram macha allah ba ni mu saayee bi mu saayee nag ñu daal di war a xool kan moo war a falu ndax boobu doomi buur yi war a falu yëpp ñu nga fa te bari nan waaye boobu néegu géej mooy falu nu ne kon euh, nanu fal Birima Ngóone Latiir ñaari birima yooyu nag dañ leen di jaawale muy birima ngoon Latir ak birima ma Cubb birima ngoon Latir ma kodd yande mbaru koor faala ko jur ma kodd yande birima Fatma Cubb ko jur kon birima mii dañ koo tuddee maamam dañ koo tuddee maamam moo tax ñaari birima yooyu ñaare ñu leen di jaawale kii birima Fatma Cubb la kii birima ngoon Latir ngoon Latir ab saa ko jur Ngoone Latir Absa bi nga xam ne moo jur Lat Joor Ngoone Latir Jóob ñoom moog Lat Joor ñoo bokk benn ndey bu leen jur ñu ne birima la ñuy fal birima ñëw taxaw ne leen pal gi nag am na waxtaan ndax samam Omari Mbéri Tall dama ko waxoon bis bu ma faloo fal la kon damay fal samam Omari Mbéri Tall jëwriñ bul ñu ne ko doo ko fal ndax sa maam Birima Fatma Thioub ñëw na fi ba dem falu ko sa may sa tend ñëw na fi ba dem falu ko kon doo ko fal mu ne leen garmi laa te sa wax du fanaan àll su ma mënta fal sa maam Omar Mbertar kon man jar ngeen may fal nga gis personnalité ak fonk say kàddu mm. te Birima bi muy wax loolu ñu ngi toll ci jamonoy ndaw waaye xam na ne donte loolu mënta nekk waaye donte loolu du lu possible waaye comme yëkkati woon na ci kàddoom il faut mu def ko ndax Garmi ay waxam du deñ moo tax buñ daan fal dañ daan tànn li amoon bu njëkk mooy kin daan fal muy nekk président la muy nekk buur ndax booba dammel mu ngi tolloog président euh, teeñ mi ngi tolloog président buur ba mi ngi tolloog président dañ dañ dañ daan yóbbu ci béréb nag la ci juddu ci jikko ci askan ci ci deret ci lépp ba nga mate ko nu doog laa fal ñu daal di koy euh, fal mu daal di woo maam Umari Mbertal mu ñëw mu fal ko mu nekk jëwriñ Mbul waaye lan doon ragal ca pal ga rek euh, nga xamante ni li naan waxi mat day guddee àll waaye lu ca fanaan moo ca mujjee am bi mu ko falee mu nekk jëwriñ bul mu tàmbalee dem lëkkook tubaab yi tubaab yi tàmbali di ko jox ay cadeau di ko may ay fase naari góor di ko may ay bërigoy sàngara di ko jox lu ne teranga nga ne ñu koy defal mu dem lëkkoog ñoom daal di tàmbalee indi jafe-jafe yooyu birima woo ko mu ñëw mu ne ko maam Amari Mbere mu ne ko faal mu ne ko man de dama laa fal nga nekk jëwriñ bul ndax sàmm samay kaddu waxi garmi du fanaan waaye gis naa ne yaa ngi lëkkoog tubaab yi euh, di tàmbalee ànd ak ñoom ëmëri mber yi tontu ko loo xam ne gënalu ko mu ne ko kon baax na ci noonu ci la Birima yeble nu song dëkkam boobu nga xamante ni moom moo di euh, Belli nga xamante ni dëkku xaagaan la dañ koy lakk loolu nag naqari Amari Bertal mu dem Bawol gis ki nga xamante ni moom moo di Ceyaasin euh, Ngoone Déggan Joor Mbacco daan ne ko dama bëgg nu ànd nu dem ma jox la Kajoor nga dàmbe ñaari ndombay tànk yi euh, ñu waxtaan ci loolu waaye ki nga xamante ni moom moo di Saala Fallène Dumbaan Jeng borom naan ñu daanu ci naanu bi ci Loro euh, newoon na ki nga xamante ni moom moo di Tenth Yassin na def ndànk ndax euh, ki nga xamante ni moom moo di Amary Berry su mënoon a jot ci Kajoor kon yaakaar naa du egsi fii di ci wax ak yow waaye comme mi ngi ciy wax yow na nga ci def ndànk ñu ne ko su fekkente ne da nga ragal xare bi rek nga nga bàyyi mu ne leen man yaakaar naa ne kuy xare man ngay dimbali te képp kuy nar a egsi ci yow ci sama kaw lay jaar kon dama xam ne loolu rek moom moo gën moo tax ma wax la ko waaye ñu waxtaan waxtaan ba mujjee rek xare ba mujj taxaw euh, ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, maam Amari Mbéri Tall ànd ak ki nga xamante ni moo di Thiassy Ngoné Diegane Dior Mbacco ak euh, waa Bawol ñen ca waroon a àndal ñëpp ñu daje ak ki nga xamante ni moom moo di Birima Ngone Latir foofu nga xamante ni moom moo di euh, Mbul nu xare fa xare bu metti boo xamante ni euh, mi ngi am ci jamonoy 1859 doxoon ci diggante Kajoor ak bool di ñaari xare yoo di xare boo xamante ni euh, lu bari feeñ na ca lu bari am na ca waaye richesse bi nga xamante ni nekk na ci xare boobu di li nga xamante ni moom moo di jëf lante yi nga xamante ni feeñ na ci ci wàll yu bari ci ngor ci jom ci njàmbaar ci sàmm say ak kaddu ci ak bokk ci lépp loo xamante nii rek nit euh, dana ko def mu ñoŋal ngarmem feeñ na ci xare boobu ci wàll yu bari nga xamante ne ci tënk rek euh, yooyu yëpp feeñ na ci ndax euh, waxtu wi mooy tax la la nga xamante ni war nañ ko détaillé ci biir yëpp li ci xaj waaye ci tënk rek dinañ bëgg sax nga defal ñu ko continuité pour wane ah, richesse ah, bëgg nga defal ñu continuité sax ndax xam naa ne waxtaan bi yemul foofu waaye liñ ci gën a retenir rek mooy sàmm sa kàddu bi nga xamante ni feeñ na bu baax ci biir waxtaan mu nekk loo xam ne instant bi dafa dafa dafa daal di di saay ndax nit ñi moom mhm. kenn sàmmatawul sa kàddu wax dëgg yàlla waxtaan bi daal dina am solo trop te bëgg nañ incha allah nga defal ñu ko continuité ay bés yi ñu jëm euh, Mbaye Babacar ñu lay daal di di la sant di la remercier mhm. jërëjëf euh, soxna Fatka ñu lay delloo cant bu baax di euh, sant ñi ma jeqaloon jataay bi di mm-hmm. nuyu téléspectateurs yi mm-hmm. Mamadou Ndiol Fall maa ngi koy nuyu baax sama xarit boobu